dañu naan waaw ah euh, euh, nu mu tuddati. Sénégal a ngi nii Sénégal a ngi nii fonk ay màggal. fonk ay màggal fonk ay gàmmu di xool xale yi ñu leen sàcc di yóbbu seen i organe di gën a maanaam dañuy gis image boo. te loolu ñuy noonu yëpp baan ngeen. dañuy gis image boo xam ni xamuñu fu image bi jóge ñu jël def ci ojo naan lii fii la xewee nii la xewee gis nga te man ñi ma ña xam kan laa yërëm. vidéo bi Ndiaye maa la ko wax signé fii ak deux ans dina ñëwaat maanaam dina ñëwaat. waaw ah, d'accord mais xam nga tax mënu ñoo sore ci wax ji. waaw mooy dafa am lu xew nga tegal ñu ko. waaw développement yi ci topp la ñu bëgg a xamaat. parce que ba fi mu nekk ni ñun mënuñu cee wax. ñii nee nañu am na benn vidéo bu ay benn waay jël a benn oto yàpp ci une dizaine de gos di leen yóbbu Gambie pour jaayi leen. waaw waa ñu loolu la wax. ñu ni jàpp nañ leen tëngeej wax loolu la wax. waaw après lu ci topp. keneen ki dañuy jàpp nañ ko tëngeej ma nga commissariat bu tëngeej. vidéo bi du Sénégal Gambie la mhm. benn waay bu jóge woon ci Sierra Leone xaw ma fan ñëwoon ñëwoon bi moo doon dem ci ay toolam dem ca toolam ba muy dem ci toolam doomam ay doom ak ay doomu frère am topp ko muy ay xale xale yi mat nañ ay sept la huit mu ànd ak beneen frère am bu muuma ànd ak ñoom dem ca tool ya xale yi su nekkee ci tool ya di bërëg yooyu ba sonn bi ñu ñibbi si xale yi nekk ci ginnaaw nelaw bi ñu amee fu mu toll am kenn ku ko bëggoon a jaay benn terrain mu wàcc di xool terrain bi bàyyi muuma bi ci oto bi dem bi mu demee bi mu ñëwee ci la fekk mbooloo mi ñëpp wër oto bi daan ne leen da ngeen a sàcc xale bi ñu interrogé waaju ji waa muuma nag mu xamul lu mu leen wax waa ji jox leen numéro frère bi wàcc mooy ki doon dawal. Mhm. kooko dem euh, ñu ko téléphone ko kaay jàpp na sa frère bi fii ah da doon ay xale nangam ak nangam dóor nañ leen bu yóbbu leen hôpital. kan kan lañ dóor. muuma bi leen doon dóor ak chauffeur bi. ak frère bi génnoon doon xool benn terrain. après bi ci polisu Gambie bi ñu defee enquête yooyu xale yi ñoo bokk benn kër. am na ci doomam. am na ci doom ak doomu frère bi ñoom maanaam ñoo bokk benn kër am na beneen photo boo xam ne sax naa la ko yónnee photo foo xale xale yi ba ñibbee seen kër ba sangu ba toog te saal ba ba sangu ba toog ak seen yaay ak seen i yompaañ ba sangu ba toog naa la yónnee. mais lan moo tax ñoom bi ñu leen dóor. Euh, parce que man ñi ma gis nii ñu nekk ay xale duñu ay xale yu ndaw ndaw ndaw. Mm-hmm. xale yi mën nañu wax pourquoi xale yi. boo yaay ngi ndaw. waxuñu booy doon doon nelaw après coow lay leen yee. déglul déglul déglul déglul témoignage bi. Ah, man la Fodé Janana. dëkk Sokota sereku Serekunda bi bëgg indi ay leeral ci mbirum accident bii nga xam ne dañu ne dafa am koo xam ne dafa sàcc ay xale ñu dóor ko affaire bi demul noonu yooyu ay kàcc la kii ñu dóor ak rakkam samay mag lañ waaw samay cousin lañ boroom oto bi sax soxnaam ñaareelam man ak kooku ñoo bokk bàyyi waaw sama rakk Ali moom ak moom ñoo bokk ndeeg bàyyi moom dafa demoon àll ba moom ak doomam ak rakkam doomam yi nag dañ koy topp toujours suy dem léegi ñu dem àll ba xale yi rek dañuy foo foofu suñu suñu yëree ci foo ci àll bi parce que dafa am tool dafa am tool Toubacouta ginnaaw Brikama léegi bu mu doon ànd ak xale yi xale yi fekk ñu sonn summi seen yére naka ci oto bi mu ñëw ba faaraatoo ba buusu mbaala ba buusu mbaala bu mu fa eggee mu daal di gaare otoom fekk am na benn terrain bu ko doon won mu dem seeti terrain bi mu bàyyi rakkam bi ci oto bi te rakk bi muuma la rakk bi France la jóge sax dafa ñëw vacances dafa xees am ñu ñëw daal di wër oto bi ne kii dafa sàcc xale yi muuma la mënul wax wante buñ ko sonalee mu daal di leen dindal numéro magam ñu woo ko mag bi ñëw ñu ne ko yéen dangeen ngeen sàcc xale yi nii ak naa mu ne leen déedéet ñu ne yow ku nga nag ni nigérien la parce que dafa xees mu leen déedéet ñii samay doom lañ ak samay doomu rakk waaw mu leen di expliquer si soose parce que saraxule la wante dëgg na soose bu baax yaayam sax soose la waaw mu expliquer leen wante nit ñi mel ni ñoo xam ne dañu taqali ak seen sago dal si seen kaw dóor leen am na benn police bu jigéen bu nekk foofu dimbali ko mu daal di woote police ñëw en renfort daal di ko jël si ñi yóbbu ko si vidéo da ngay dégg ñoo xam ne dañuy ne nañ ko rey nañ ko rey à la fin rey leen ko moom nag jot na daal di photo ñenn ñi ak ci video yi am na ñu si nekk kon mbir mi duñ ko bàyyi noonu famille bi dina jóg def lu ci war ci loi ñoo xam ne dañ leen nar a daan ñu daan leen oto bi ñu fay ko parce que dañu mujjee puus oto bi dem lakk ko loolu yépp ak xamadik ak reewandi ak euh, indiscipline man mii di wax nag comme nu mu ko waxee xam naa ko sama mag la sama sœur bu ma bokk ak baay euh, mooy ñaari lam mbir mi nekk na mbir mu tiis mbir mu euh, bu ñu daal di metti lu baax bu baax wante alhamdulilah mu mag rakkam bi yëpp euh, daal du ñu faatu dañu am ay gaañu gaañ dem nañ si hôpital ñu jox leen ay garab waaw def examen écho alhamdulilah. lu ñu si gën a métti mooy luy tis tas si whatsapp bi ay kàcc yoo xam ne nit ñi di ko jël di ko teg si ndoddu suñu mbokk mi ak ñooñu nga xam ne dañuy daal di topp seeni bànneex di toxal affaire bi naan Sénégal la nekk Tëngéej la nekk loolu yëpp ay kàcc la loolu yëpp amul mbir mi buusu mbaala la xawee fii Gambie kon si affaire whatsapp dañu nar a def attention loo dëgg mbala nga koy toxal nga daal Eh, fexe am ci lu wër. xalaas. seetlu nga benn affaire. Hmm. li ñu fi tegoon semaine bële passé mu di benn waay boo xam ne doomu nijaayam moo ko doon tooñ. waaw. ba mu jural ko musiba. Hmm. fu mu déparé. waaw ah, ci WhatsApp yi. kii nii tamit bon lañ koy def moom ci saasa lañ ko fa def. Hmm. mais ñoom li leen metti mhm. ba ampleur bi ñu jël benn bi ci whatsapp bi la jaar mhm. mooy li may wax rek mhm. li fekk jëfandikoo wuñu ko ni ñu maanaam li ñu ko mën a jëfandikoo du ñu jural njariñ de loraange la ñuy jural men waaye bu ma ko njëkk envoyé da dama ni ko gis nga sénégalais bu ci bàyyil partagé di nga partagé bañ jël si la <laughs> ba dig jël si la noonu li may wax nii c'est sérieux mais lu mën a nekk la sax waaw parce que vraiment man mënti ko mënuma comprendre yow ñu yónnee la loo xam ne dara leero ci et puis man ñi ciy def ay ojo waaw lii ah, moom du fals lii moom problème nag man mooy man ñooñu laa bëgg a xoolaat seen réaction. ñi doon def audio waaw ñooñu laa bëgg ñu demaat seetiwaat leen ñu kiiwaat audio wax. ñu wax duñ def. lii mooy ñu waxoon nii. yow de xamoo nit ku ñuul. waaw mais kon dugal. mais kon ba xam ngeen ni ñun njaay. ñu ci erreur de. keroog yomal xiyam euh, ku yéex rek ñun ñoo la yéexal ñun. ah, ah mais mais mais mais mais mais njaay li c'est ah, ñu ngi ci yàq yi def ay témoignages yoo xam ni yow wóoru la. ci après ñu ne de ba pare gars yi dañu attaqué ah. ba pare attaqué ay Sénégal dañoo fonk ay diine ay gàmmook ay lii lu ci yoonu. gàmmu ak sàcc xam nga lan moo xaw a tiital. Ah. moo yi boo ci doon dégg ay xale ki jigéen sax. Ah. ay mag nga mën ne par exemple non jëfi xale la. wala xel matul wala wala wala xel fu jigéen la. Mm-hmm. mais ay góor. bunkali góor. dèjà ñàkk fayda ci góor weesuwul di sos lu am. te dégg kii rek ne. waaw ba pare nag di ci ànd ak certitude. waaw di ci wax mel ni yow li nga yaa ko. yaa ko fekkee hmm? beneen bi ci topp mooy. nañuy teey waa ji ñu fekk ci oto. déjà première erreur mooy fekk nga nit mënut a wax looy ndox di dóore. Hmm? Hmm? lu ne mënoon na faa xew. et puis kenn waru jàpp kenn di ko dóor dëkk bi am dëkk boo dem am na yoon. am na yoon koo jàpp sa xel tey ci moom yóbbul ci yoon. léegi xale yooyu nekkoon ci oto bi assister seen bi pour loolu dina jug seen bopp. ci ah, doy na war jaxase nañ leen de ah déedéet c'est que man sax waxuma la maanaam affaire baag yooyu man ñeme yàlla gi ci ak site internet yi ko jël bind ci article nag laa de. mais ban publier vidéo bi nii loolu dëgg la. mais ban yow ak Maodo Mohamed njaay mii la ñu xam. mais tey baan mënoon naa jël ay doomam wala moom du Mohamed njaay mi jël ay doomam dem géej xale yi sangu ci géej gi ba sonn ngay wàññeeku ci yoon bi ñu lay proposé benn affaire booy xool nga dem di ko xooli bàyyi fa sa rakk ak ki lay fa. même situation bi mën na a dal. waaw lii nit ñi buñ ciy wax war waruñu cee noppi. mais lii nit ñi buñ ciy wax waruñu cee noppi nit ñi ëppal nañ ëppal goo xam nit ñi nañu def nànk di rey nit ñi ci ay erreur. abaa lii feeñ leneen dina feeñaat fii ak nañ dem rek man mii nga fekk ma ci oto di ma laaj xale yi yan la sama tontu day yéex ma yéex a tontu nga dóor ma. <laughs> waaw nee na koo sàcc li ngay wax wóorul muy waaj a génn du mën a génn. <laughs> surtout bu ma amee pression. li ngeen di wax ak du génn. mën di la xew gàmbi ngeen di tëngeej la xewee def ci audio beneen bi tamit da ngay dégg kuy def audio salaamaaleykum mbokki jullit yi waa ji ngeen di gis euh, Seydina Mouhamed da koo feeñu xomal lan ak lan ak lan daal di daal di publier. lii ko ko privé yàlla na yàlla publier say mbir biir ku ko partage yàlla na la yàlla partage def ay waaw di nga am ay nit ñi nag di am taaw di ko partage beneen bi da ngay gis waaw euh, sëriñ nangam elaaji xomal na nangam mu muxaddam xomal na nag nangam nee na gént na yàlla sunu borom nee na ko ay balaa dina wàcc ci réew mi ay ku tànk yu bari dina dee ay paa yu bari dinañ dee ay nangam musiba mbay mi. naan partagé leen ko cinquante personnes. waaw xool xam nga loolu ñett la ci crédit. partagé cinquante personnes mais ni man waa ji bi may envoyé ah. ma envoyé waale. crédit ko cinquante du loolu man ki ma ko njëkk a envoyé dama ni ko yow da toog est ce que mus ngaa toog at moo xam ne amul ay gone yu bari yu faatu wala ay nit yu bari yu faatu. mosoo ko gis. neel ki neel kew ku gént mbir moomu nga ah, kooku eh, wàll yu woowu ngay wax nee ko moom yàlla ci ak njabootam ëpp. <laughs> non c'est vrai nit ñi dañoo sonal nit ñi. ak mu jot ñu defal ñu ay. yéen yéen da ngeen a am jot man ah. duma ci tontu. Ah, yow duma ko xool. te bu takkar naa see dootu dootuma ko jotati. ah mais bien soo ma yónnee <laughs> bloqué waaw man ma bàyyi respect xool. waaw <laughs> man de maa yónnee waat ma li nga amul lu ma benn njëriñ. nga tegaat ko ci. waaw ma dootuma ci jotaat mën naa la démb ba démb. te lool laay loolu laay digal Sénégal nit ki la fekk nga toog ci sa jàmm. fekk lay dugal ci yoo xamante ne ji amalu la njëriñ. Mhm. boo ko toppee di ko rëccu. man ci loolu ma fekk man démb laa doon compter ñaata nit laa bloqué. 313 numéro laa bloqué. waaw d'accord débloqué leen nag. non non du ma leen def parce que dañ soo leen bloqué ci def sa crédit war a enjoy nit ñi ñëw di la bëgg di la teg ay jooy. te yow da nga bëgg <laughs> la jooy loo man dama lay bloqué. <laughs> waaw waaw ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñu ngi noonu di la jaxaseeg Pape Cheikh. waaw ah, yaa ngi dégg. ay seytaane lañu gis nga nii la du dégg ñu ngi naan ay ay Pape Cheikh démissionné na ay Pape Cheikh ak Abba nang Pape Cheikh Diallo. <laughs> ñu naan waaw ñu naan Pape Cheikh Diallo bind. seen internet yi bind ko nit ñi di ko débat ñu ni Pape Cheikh day day féere Abba. patiti loolu waxi ñaaw yu ne ñu wax ko. noonu xoolal noonu la. xanaa xamuñu ne Pape Cheikh fee indi Abba. xoolal dañoo neex xoolal c'est le même groupe. dañoo neex bi. Uh-huh. ñoo tas diggante Ndiaye ak Kouthia. ay seytaane lañu. ah diggante ba tas na. diggante non léegi defar defaru na. c'est que su c'est ñaar ñi nga xam ne suñu comprendre. Eh, c'est diggante yow waay bantax nga may ma jàmm. dégg nga lee waay dégg nga lee waykat bi naan seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel. dëgg la de dañuy fekk kër goo xam ne waxal laaj bi kuy tas sama diggante yow ndax nga may ma jàmm. non bari nañ. saa jutun génne ñun ma njaay li abal li c'est que problème bi mooy soo dégloo nit ñi liggéeyal si liggéey te dox sa dox parce que luy dox la Sénégalais yi di bañ moom naal nay sooxee rek su sooxee ñoom seen waaye. nañ la yërëm waaye su fekkee yaa ngi dox kër ga nga nekk di dox ngay dox ñoo doxul ñooy bëgg ngeen taxaw comme ñoom pour ñu créer moo tax ñu créer genre buzz yooyu mais xoolal yàlla na seen jàmm yàgg yow Pape Cheikh Aba mu Ndiaye képp ku fi liggéeyee fii Futurs Médias yàlla na sa jàmm yàgg eh, sondage yi génn ñuy jël paie partout. oui eh, man nit day am bañ ko man yow laa àndal. <laughs> soo la commencé. <laughs> xam nga ñii xam ñoom ñooma ñooma. Touba daal benn xale bu jigéen lañ fa sàccoon ci ay waxam nee na daal dañ koo sàcc. Touba waaw. waaye ba mu ñibbisee nettali na nañ ko sàcce ak fañ ko yóbbu. xale bu jigéen. waaw bu ndaw wala bu mag. am na war na am ay 17 ans 18 ans. Ah. ko kay jànq la. ah waaw nee daal dañ koo sàcce. ñoom dañ ko sàccee kay kooku du xale mu demee déglul. ayca jógee fii nii xam nga daa Tanzil. léegi ma daal di jàng ba wàcc ma ne naa dem suñu kër daa Tanzil. ah Mbacke laa féete bu may jàng ma daal di ñëw sama yenn sama yaay ba ay 18h ma génn dem di ñibbi. Mbacke jël oto ba jumaa ja ma wàcc di xaar Mbacke Touba am benn tàkkaat mu fekk def trois filles amul góor jigéen moo doon dawal ñaar ñi si des toog ci ginnaaw. munuma foo jëm soxna si Mbàkke ma ne ko waa mun ma ñëw ma yóbbaale la jàmm gën laa jëm après bi ñu duggee noonu ñëw ba ko eh, côté xayra yooyu noonu ñu daal yëkkati benn kanet jox ma man ko yii soxna si baax na munuma yéen jigéen Tuuba moom ñii rek kenn du leen jox ba ngeen ma daal di ma daal di jël kanet maa ko daal keroog laa gëj a xam xew waaw léegi nag fu ñu la yóbbu woon ñoom hmm, man xaw ma ko de buñ la yóbboo luñ la def ma dara si guddi daal laa yeewu génn ci néeg bi ñu ma dugal. waaw bu yam ci ñoom ci ñu toog ci benn saal. xamoo ban dëkk la foofu xaw ma ko de. du Mbàkke du Mbàkke de. après ma daal di génn bi ma génnee si biir néeg mu ne ma dugal fee nga sangu nga nga nga ñëw reer ma ko damaa bëgg mi bi mu daal di reer daal na ma ñibbi kay. waaw daal di génn bàyyi ma ci salon bi man noonu ba fajar ay du matin. ma daal di fëgg gardien ma daal di fëgg gardien bi ci man ko damaa bëgg a saw munuma noonu dama yóbbu ci toilette bi ñu génnee appartement bi mu yóbbu ci toilette nag. après sax maa dugal ci toilette bi daal di tourné duggaat ci appartement bi ma daal di daw te du noonu porte toilette bi. ci laa daal di génn daw ba yéeg ci kaw tali di déggal gis benn rang am benn Mercedes bi romb oto bu ndaw ma arrêté ko mu ne ma foo jëm ma ne ko mën naa génn fii rek xaw ma fan la ma ko ñu yóbbu ma waaw mu daan ne ma man Dakar laa jëm nii laay continuer moo tax boo taxawee ne da nga am auto Touba wala nga woo say mbokk ma ne ko waa baax na. moom waxu la foofu fan la waxu la fi nga nekkoon fan la. déedéet ma daal koy fay deux mille francs après ci laa toog foofu woo samay parents. mais ba léegi yow fi nga nekkoon xamoo ko. ba léegi fi ma nekkoon xaw ma parce que ba ma génne talu ma woon loolu man maa ngi doon tal fan laay rëcc. yow rek yaa fa nekkoon ci keneen budul ñoom ñett ak gardien bi. ñoom ay jigéen ñi kese lañ gardien bi rek moo leen. waaw waaw loolu laa wax ak gardien bi. bi ma yeewoo bi ma yeewoo kenn ki fekkuma ko fa ñaari fii rek laa xam ne ñu ne